jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fa leen daan nuyoo tey ñoo ngi Pikine seet si benn xale ndaanaan koo xamante ne daa bokk ci làmb ah lu ne def na ko ci làmb nekk ci keppaaru kii di Ama Baldé nekk ci keppaaru kii di Jules Baldé ah di nuyu ñoom Malo Seras ah Falaye 2 ñëpp ñoo ngi leen nuyu booy Jules nuyu naa la. waaw asalaamaaleykum Ousseyn ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu àdduna ñëpp di sant ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi. di ñaan mbas mi nga xam ne moo sonal nit ñi mu jóge fi ci barki Seydina Mohamed di sant suma yaay bu baax a baax a baax di sant suma staff ku ci mel ni Jili juuf ñoom Fallou ñoom As Mbaye ak Baye Zal mi sama copain sama coach maa ngi koy siyaar bu bër sama coach Moussa di sant waa Pikine waa Marsa Zank bu baax a baax ak waa syndicat ñëpp maa leen di sant bu baax a baax alhamdulilah. lan moo bi. waaw turu Boy bi. Ah, waaw turu Bozib li ko waral moom leen la rek moom man moom damaa bëgg Jules Baldé ba mu jeex waaw moo tax ma tuddee ko sama bopp waaw. fii ñu nekk nii ban saal la. waaw saal bi mooy saalu Bantamba waaw saal bi mooy saalu Bantamba Pikine quoi. ñu gis ne saison bi tëj na mais ñu seet si la nga ànd ñu ci saal bi lan ma waral loolu. waaw c'est parce que man moom sportif la même bu dul làmb sax damay entraîner parce que dafa nekk sama deret mënuma toog. waaw man lépp hivernal ak été lépp ay jéem damay entraîné bu baax baax man moo tax ma ne xaar ba indi leen defaale première séance bi ci journée bi quoi. Mhm. gëj nga géej nga école gëj nga entraînement école. waa instant bi xam nga gars yi tere woon jaxasoo beeg rassemblement beeg affaire yooyu noonu moo taxoon dañ doon entraîné individuel rek waaw comme noonu. Mhm. Boy Jules kañ la dugg ci làmb Boy Dóor. Boy Jules nga dugg ci làmb 2015 2015 fin 2015. waaw fin 2015 waaw. ñaata combat nga def. def na huit combat waaw cinq victoire trois défaites. waaw di ko sant yàlla bu baax a baax a baax. kana kana nga daal. man Cheikh Super Jamono. ak benn melo ak maam bu faas moom mu mujjee tam. loolu dinaa ci ñëw sa troisième combat kan nga daan. Euh, bëri naa Fama bu Jaxaay ak euh, Dame Ndiaye bu Jaxaay ak Guy 95. ak euh, boo yëmbal ak euh, Pape Thiam bu Guédiawaye waaw. Pape ban parce que ñu bari dañ ci xaw bi Pape Thiam numéro 1 la wala Pape Thiam numéro ah, ah. Ah, mais ñu gis la ñu ñëw ci saal bi nga takk gants yi. lan moo lool parce que damay dégg ñu bàyyi ñu ne Boy Jules du xeex Boy Jules tapet la parce que ba ci dernier combat bi Boy Jules dañoo gis ab bi dafa sifla même sa combat yaak Pape Thiam ab bi dafa sifla nga daw vraiment sa ko ak làmb jeex lan moo war nga takk gars yi dégg jëw boobu wala. non non man li nit ñi di wax dégguma man li nekk ci man rek laay jëfe làmb ju nekk ak li laaj bu jotee pour ñu xeex dinañ xeex te dinañ xam ne Boy Jules man na xeex ba ma delee bëre ba léegi nit mosuma tuuse ci làmb te bu ma la bëggee dóor dama lay dóor. làmb calcul la ak na ngay gérer say combat ndam nag yàllaa ko yor waaw lu yàlla dogal ak dañuy xam ne noonu la. waaw mais sa dernier combat bi leen la gis Boy Jules dafa ñëw kenn xàmmewul Boy Jules gars yi comprendre duñ quoi abi dafa sëf la ñu jékki gis Boy Jules gis Boy Jules daanu Boy Jules jug dem ci abi di commencé lan la combat bi lan la da nga parewul wala lan moo tax lan mooy problème bi. làmb ji pare naa ko bu baax a baax a baax. li ma war a def ci combat def naa ko te bii sax da cee raw. yàlla moo yor ndam préparé na li ñu war lépp def ci xaalis bu bari ànd ak sumay mbokk ay baysal ñëpp ñoom jileeg ñëpp préparé ñu ñëw yàlla xañu ñu sante ko yàlla dem préparé jiwaat parce que làmb ju nekk ak li muy demee Pape Thiam bi may bëreeg moom benn coup la lancé ma paqueté ko sànni matul sax 21 secondes te man bëri naa presque ay 3 minutes 4 minutes xaw ma waaw kon loolu lépp yàlla la waaw sama kombaak ak maam moo du ragal moom ma daan wala dara man ragaluma mbindeef gu yàlla sax. ragaluma nit ku yàlla sàq ci làmb. mais gars yi dañoo gis ne est ce que yàgg moom Mame Mor est ce woon est que jaadu na mais après ñu ñëw ñu naan jaadu na jaadu ñu ñëw yi sa supporter kenn comprendre ba léegi làmb ji man mi wax ak yow làmb ji dafa gaaw ci man bettu ma mais gaaw na ko quoi dafa gaaw. waaw waaw bu dee cadre làmb maanaam bu dee cadre làmb mën naa ne jaadu na parce que bëri nañ mu daan bu bugguma cee wax dara loo xam ne ni day ñaaw dama koy jaaral yàlla ndam ni jikko waaw ñu li si kanam nag raw bët. bi nga jugee ci loolu léegi est ce que la doon proposé ay adversaire waaw ñu ma doon proposé ay adversaire mais adversaire yi ñu may proposé moom wax dëgg sax tudd seen tur parce que mënuñu laa yóbbu fenn ci la daloon ci maam moo dalaat la. waaw waaw parce que dëgg yàlla di retourné moom di xoolaat li xam ne nii moom mu ngi sa ginnaaw loolu moom ñaanatuma ko yàlla. mais man damay gis damay gis ay adversaires yoo xam te yaa ngi ñu may adversaire taay ngeen adversaire maanaam ci bi tolloo ngeen ci làmb ci lépp mais dama gis yow ak ñoom ji day jaar nii kii jaar nii et pourtant yow da leen fi bàyyi dem jëli ñoo xamante ni yaa ak ñoom du combat wala boog yaa ak ñoom ñoom ñoom yaa ñoom ñoo gën a neex par ak ñoom lan mooy waral loolu. dama fi gis ay aar ah, ay ay ay ay kii euh, nu mu booy bi. Adama dimbali ma. Euh, ndongolo. Ah, ay ndongolo ay ay ay mbër. ñooñu yow ak ñoom nekk làmb ju neex mais dama gis da ngeen fi teggante wala boog da ngeen ragalante te koo ci seeti mu ne gars yi ñemewuñu ma. yow xam nga ne Zil du ragal yow xam nga loolu bu baax. non mais ñi seetaan xamuñu. ñi xam nañ bu baax dañ dul nangu rek. mais Zil du ragal ci làmb amul lu may ragal ci làmb. barke Serigne Touba Mbacke ñooñu maanaam dafa am promoteur yoo xam dañuy utal jël booy di leen tànnal yoon mais li jaaru ñëpp xam nañ ko kon dañ ko war di doxal di ko teg ci yoon. léegi yow lan moo jaaru. yow sa combat xam nga nit ku nekk di nga ciblé ne kii su ma ko amoon man ak moom combat la. waaw léegi yow lan moo jaadu. man maag nu mu tudd euh, mbër boobu Papa Yade làmb la. booy tëngéej bi. waaw ah. ngaa jël Papa Yade. ki ñë fi ñëpp bàyyi. kooku laa soxla Papa Yade ci boppam Papa Yade bu ñëwee mu bëree mu duma ko daan ko barki sëriñ Touba. dama xel ngi ci keneen. ak kan Pape loolu day neex. ñi ma ak mer gi mu fanaanoo nii. non tapet day gaaw a giif. te Pikine ak Fass loolu loolu làmb ju neex la. non Pikine ak xam nañ fañ daan jaar Papa mu daan jaar Mbaye Guèye daan jàngal bëre bokkul. Ah, gis nañ Papa Sow ak Ama Baldé. du làmb mais ñeme ngaa jël avance Pape Ndoye Pape Ndoye fi mu toll nii ah neexut da de. non làmb ji avance bi bu ñëwoon tey tey tey barki Serigne tubaam Mbacke moo dugg ci koñ bi séddale ko. Jules ba booy Jules ba du sa coach toog sa ginnaaw nga ànd na xaw a ñaq nii tax ngay toog di wax. biir géew ba man maa fay nekk du moom mais bu avance bi ñëw léegi léegi. barke damaa dégg gars ne booy Jules ñemewul ku te Pape Ndoye moom ab bi teggi na loxoom sa diggante ak moom fete li tàkk na. Serigne Bamba mu dóor ko mu daanu. billaay wallaay. boobaa la ñuy xam kan mooy. Pape Ndoye <laughs> booy lay wax man waxuma de. Pape Ndoye xam na bu baax li may wax. moom xamante nañ bu baax. ngeen xamante eh, nañ esaat. dañu ne ay baaru li ko booy Jackson kaawoo tax. ay mboqam bëgg làmb ji. ki ma xam ne boppam moomoo bëgg làmb ji. mais nag yàlla moo ko tuddagul mais bu taxawee la ñuy xam kan mooy booy Jules yàlla bari na sutura. kon daal sa xel a ngi ci bëre ay ñoom Pape Ndoye ah? sama xel tëm na ñooñu sax waaw mais dafa doon du jaaru daal mais sama bët mi ngi feneen tegu ma ko foofu ak sëñ Touba. Mhm. bu jugee ci loolu ñu ñu ñëw ci Ama Baldé Modou nga nekk poulain wu Ama Baldé noo gisee làmb jooju làmb ji dama dégg làmb ji bari na coow yu nekk a ngi ci daal lu nekk a ngi ci làmb ji est-ce que pare woon ngeen ko pour bëree ko ren. làmb ji moom bu bëree coow rek waa parcelle la parce que man yàgg naa ko wax nee naa leen Modou du bëre benn date. du parce que ragal la. fan nga teg loolu. dama koo xam rek. mais Modou yàqu làmb ji de. làmb ji bu baree coow. waa parcelle la mais du waa Pikine. ñun ñu mais yéen mais yéen yéen yéen bëgg a bëri Modou Lo Modou Lo. waaw ah, mais parce ñun ñoo bëgg a bëri pour daan ko parce que xam nañ ne moo. man dégg naa Ama Baldé nee na su Modou Lo demoon ba màgget di doxee beeke dina ko nangu daan ko joxaat ko beeke bi mu dem. waaw ba pare ma léegi coow li kay su amee ci yéen la wa. non du ci ñun parce que ñun jot nañ avance. ku jot awance nag pare na pour bëri non. waa kay kon kay du ci ñun ñun ñun xam nañ suñu mbër Ama Baldé xam nañ mooy kan. te barki Serigne Bamba bu doon bëreeg Modou Lo maa ko wax kele bu mu koy daanee. doo ma ko dee kenn dégguñu man ak du ma ko dee moom xam na li may wax Ama Baldé. du kaddu Ama Baldé bu doon bëreeg Modou xam li ma koy wax pour mu daan ko man xam naa ko te bu ma ko waxee da koy daan barki Serigne Touba kele bi maa koy jox Modou Lo mënul daan Ama Baldé. fan nga teg loolu. non mais xam na ni mu demee tamit. déedéet bari na fi ay mbër yoo xam ne ñu ngi ci kaw te mënuñoo daan mbëri ci suuf. mais eh, Modou Lo bul fàtte ne Modou Lo daanoon na Ama Baldé. ma la la boobu Ama Baldé booy la daan toogal ay Bas Ndiaye xam nga di leen toogal ci mukaay affaire yooyu noonu ñooñu ay booy lañ mais si tamit ci au nekk ci kaw ci mbëri mag yi mais te mënul daan booy ndaw yi. barke Sëriñ Bamba. ma Siteu mu toog Siteu daa am combat moom Papa Sow bàyyil Siteu parce que Siteu bi mu fi toogee topp Ama Baldé di wax topp sama papa. Zil Baldé lamb ju jaadu woon la. loolu jaaduwul. Ama Baldé Siteu Ama Baldé mu jaaral ko mu def année balance. yéen doo leen mbokk ay mbokk Siteu yéen nag maa ngi doog xam da ngeen bañ Siteu. <laughs> ay mbokk Siteu ngay waxal yow. non barki Serigne Touba Mbacke. man ak Siteu bu ma ko jàppee wëru Serigne Bamba du doy. bàyyi li nga wax waaye bàyyi li nga yow. parce que xam nga mooy problème bi bu ma ko waxee nii nit ñi duñ ko dégg parce que tollaguma ci catégorie moo ma raw ci làmb nangu mais bu doon contact la paquetu tàngal bu ñu ko tegee du màcc benn barki Serigne Touba Mbacke Boy Jules mi wóolu na boppam de. jaw man ma xam sama bopp xam sa bopp daa bokk ci jaamu yàlla. di santaale Serigne Cheikh Fall Mbawar bu baax a baax a baax di leen ñaanal gudd fan ak wér Serigne Abdou Karim. waa Touba maa ngi jégalu bu baax dama leen yéex sant bu baax ku ci mel ni waa kër Soxna Yàlla si la Baye Galaas sëñ Modou ñëpp maa leen di gërëm di leen sant waa Touba gépp gépp mag sëñ Touba. léegi Boy Jules làmb ji suñ na woon maanaam làmb Ama Baldé Modou Lo des na mois nu ngeen waajee làmb ji. waaw comme ni ñuy waajee yeneen combat yëpp contact waaw nekk ci non stress ah. damaa xam ne làmb ji fi mu toll nii yéen da ngeen ko oyofal te nekk làmb ji nekkul làmb ji oyof ndax damaa dégg Modou ñu ne képp kuy bëre moom ay mbokkam duñu nalaw ndax bu ñu nee Modou nga am rek say mbokk war nañoo wàcc yow bu wàcc bu baax a baax a baax baax sax. ñu dañoo xam bu baax dañoo xam Modou Lo bu baax. parce que dugg na fi daan na leen ñaar yoon tout récemment daan na Eumeu defet bi metti leen gis naa ci Boy Niang jooy na ci bay bëgg a dee. waaw waaw loolu moom sant yàlla su di nuyuwaale euh, sunu grand machine bu baax di santaale Boy Niang di ko gërëm bu baax tout pare fii di bëggewaale sama grand sama nit sama xarit sama lépp soq waaw. di ko soq na laamu ju neex laamu gëy. Ah, ah. kon maa ngi bëggee bu baax di santaale jabaram dikke waaw. Mhm. mais làmb lamb la quoi Modou Lo ñun jaaxaluñ. waaw ñun jaaxaluñu. Saalum dafa mel dafa commencé féex fi mu toll no non. <laughs> Saalum daa commencé féex de. waaw moom no stress dañuy dund ay Baay Faal lañ te ñun xam nañ li ci làmb jooju te làmb jooju du yàgg du mat une minute ñu daan mënuloo. barke Serigne Touba. bu yow booy si li ngay wax nii fan nga ko teg yow yaa ngi bëri tout récemment daanu après ñëw mel ni yow yaay Serigne Modou Lo Ama Baldé wala boog yaa ko yor boo ñëwee naan làmb du mat une minute suñu taxawee ma bi koy daan. waaw mais làmb ji kat. lan la leen dee moo tax ngeen jël Modou Lo kat moo fi amul defet. làmb ji waaw. de. ah ñëpp am defet. kon defet du dara sant yàlla. du cadre du dee dañoo xam suñu mbër xam li muy liggéey bu baax gis ko muy liggéey xam ne doolee du benn doole mag ak doole gone du benn bak Sëñ Tuubaa mais làmb jooju làmb jooju maa ngi koy wax sama ah, sama cameraman bi Adama nee dama koy ñaan yàlla bu ñu ko defee national ñu yóbbu ko amitié. ndax xam naa ne bu ñu ko defee arène national euh, du fa xaj ndax xam naa bu waa Pikine génnee rek dañ koy duy ba mu fees teel ah, su ko defee ambiance bi ca war am du ca am dama bëgg ñu yóbbul ñu ko arène fee euh, amitié ñu duy ko ba mu fees toog di seetaan nag nu waa neete du ma teg ay bëtam lamb ji bu doon néegu Modou la ñun dañuy ambiance biir parcelle biir parcelle néegu Modou Lo ñun dañuy ambiance ci kaw lal bi <laughs> man de waxuma yaay wax barki Serigne Bamba balaa ma fay dem ñu may génnee parcelle amul ku mën a sonal waa Pikine parcelle amu fa. non mais Modou daan daal ñaa yoon nga amul ku mën a. duñu dara loolu asaka la. mu daal leen nanguwaay des arènes li nga xamante ni moom ngeen doon wër. loolu dara Balla Gaye kele bi muy daani Modou Lo ñun heure bu amee combat day ñëw fii jox ko. yéen yéen a jox kele bi daan bi Balla di daane Modou Lo. amul wax amul ñu xam nañ lépp duñu ay ngaaxa fii leen juddoo. waaw ah, man téemaa yuuxu boog. <laughs> waaw di sant sama mbokk séeréer yëpp ak pël yëpp. ku ci mel ni El Hadj Ba sama mara boobu maa ngi koy sant bu baax aw mu fayam. barke Serigne Touba Mbacke sama gars yi ma àndal ñoom Maxoog ñëpp ñoom Salbek di sant waa Ngéwal bu baax a baax tamit. waaw maire Ndiaye Cheikh Mbaye ñoom Ndeye Khoudia ak Tabara xam ñoom Alioune Diko euh, Yaxub maa ngi koy bégee bu wér a wér a wér waaw ñoom faatu Mbaye ñépp daal maa ngi leen sant bu baax ak waa Pikine ñëpp. mais la moo ne sa kanam bi nga jugee sa combat yaag Boy Jules yaag euh, Mamor boobaak léegi est-ce que maanaam pare nga pour pour jëlaat avance wala boo corona bi moo téye dëkk bi moo téye làmb jeeg yooyu est-ce que pare nga pour bëriwaat. waaw namm naa làmb trop wax dëgg yàlla waaw. ñun ñëpp namm nañ làmb. surtout man dama cee raw. waaw dama cee raw. mais lan moo tax duñ la gis ci lutte simple bi. waaw lutte simple bi li ma ci ñëw moom xam nga kiiwul quoi parce que moom lu ma ci ëpp ci àll bi laay waaw li ci ëpp ci àll bi laay dem quoi. yaa ngi dem ci àll bi ba léegi wala gëj nga ko. non maa ngi ciy dem waaw. sa diggante ak waa Pikine lan la. sama diggante ak waa Pikine. waa jàmm jàmm ju bëree bëree bëri. waaw parce que wax dëgg yàlla ay gars yu baax ñoo fi nekk. tamit bëgguma lool baak sëñ Tuubaa aw ma cee kenn xaar ma yàlla. waaw dañ ci jàpp bu baax dañ may woo di ma conseiller di jël seen alal di ko def ci man waaw kon dama leen di gërëm bu baax. dama gis Pikine dafa bàyyi ay mbër bàyyi ay écurie est-ce que yéen a ngi demalante. waaw man maa ngi demalante ñu bëri bu baax a baax man parce bëgguma juum ko waaw ñëpp laa sekkal jàmm ñi ma ci xamante ne ñëpp maa ngi déggante ak ñoom wàcc sëñ Tuubaa waaw ay borom baax ñoo fi nekk billaahi. boo amoon kàddu yu mujj loo may wax. waaw sama kàddu yu mujj moom xanaa damay sant rek ba pare damay sant Pikine gi ma dëkk fi ma juddoo yaroo fi màggee fi waaw damay sant waa Pikine bu baax bu baax di ñaan yàlla jàmm yàgg fi waaw di ñaanal suñu benn grand boo xam ne wax dëgg yàlla bërkaati démb la génn àdduna ñu koy siit naar Sidi Mohamed Sow di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam xam nga yokk ay leeram ci barki Seydina Mohamed di ñaanal suma grand Jules Baldé kooku dama ko ñaanal wér parce que borom baax la parce que Sëñ Touba day sonn ci ñun làmb ju ma am da ci sonn fu ne lay dugg ñëw kon dama koy sant bu baax a baax a baax di ñaanal Ama Baldé jàmm ak ndam barke alxuraanu karim bégee Jacob Baldé Ousseynou Mané Pakola Babacar ak Ndéla di sant waa marché 5 bu baax baax di sant digg buse yi nekk marché 5 ma leen di jaale bu baax sunu doom sunu grand sunu mag sunu lépp Assane moom la ñu rayee waaw di sant bu baax Mayande ma koy jaale yaayam ji nga xam ne moo génn na di sant waa marché 5 ñëpp As Mbaye ñoom Birane ñoom Modou Birane ñëpp maa leen sant bu baax a baax baax di sant sama benn jigéen ju baax a baax nday faatu waaw Ndeye Fatou Mbaye maa ngi koy sant bu baax koo xam ne nii moom kenn la ci man ñu koy bëggee bu wér xam nga di sant Baye mii di sant jabaram bu baax moom da ciy jàpp. coach waaw coach waaw moom da ciy jàpp bu baax. dëgg yàlla kàccoor la mais da ci jàpp quoi di sant suma kooku aw ma fayam suma yaay aw ma fayam parce que dafa def ci ñun loo xam ne nii wax dëgg yàlla lu lu bari la barki Serigne Touba Mbacke ak samay mag yoo xam ne nii ku ci mel ne Omar Fallou ak euh, Jibi ma koy ñaanal bu baax a baax a baax di sant waa Pikine yëpp di sant waa kër Cheikh Ibrahima Fall yëpp euh, Serigne Cheikh Fall Baye Góor. ma koy sant bu baax Serigne Cheikh Ndigal Fall ma koy sant bu baax a baax Serigne Cheikhouna Fall ma koy sant bu baax a baax di sant Mbàkke Mbàkke yëpp sëñ Saali mu sëñ Modou Boussa Dieng maa ngi koy sant di sant waa Casamance waa Guinée maa ngi leen sant bu baax a baax waa Afelay waa mbal mi waa Ngaay Cine maa leen béggee bu baax surtout waa Touba nag parce que aw ma seen fay soxna yàlla si la soxna sëñ bu sa Dieng la maa ngi koy sant bu baax ak ay doomam ay sëtam maa ngi leen sant bu baax a baax Baye Bàcc maa ngi koy bëggee bu wër ak soxnaam sunu yaay soxna Xadi waaw maa ngi koy bëggee bu wër di sant waa pikin di la sant bu baax a baax a baax ku ci mel ne ak sunu grand Pape Soulay Los <laughs> waaw kooku dañ koy sant parce que borom baax la ak Moussa Fall jili sama staff jili Diouf xamuraan nga euh, Fallou as sunu président fan si kërëb Amadou Thioulde di sant ñëpp sama waa kër ñëpp maa leen sant bu baax a baax a baax ak sama waa ko ñi nga xam ne ñooy bëggee Zil ñoom Dabaax ñoom Met Jama ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal mbas mi nga xam ne moo nekk ci réew mi mu jugee fi ci barke alxuraan. sonn nañ na fi gaaw a jóge. danoo sonn waaye nag ñun ñoo ko def gan gu ñëw nga gane la ko di ko woy woy yu neex. <laughs> ah di daw di dugg sa kër di fatu di ko bàyyi mbedd mi nu ñuy def ba mu dem. waaw wax nga dëgg de bu xanteeg moom bu xatee xanaa dina génn réew mi xool. wax wax nga dëgg de wax nga dëgg de ñoo ñoo ko yaatal. xam nga ñu ne ñoo mën gan nag. waaye bii nag moom <laughs> beneen affaire la waaw di sant ñëpp nag di sant waa Pikine yëpp. soq ma koy sandaat parce que dafa bàyyi léppam ndax man di ma jàppale bu baax a baax a baax li may wax nii sama xool laa ko tibbee dama ko koy ñaanal moom ay ndami ndami ndam ci barke alxuraanu doomam bu ndaw bi Mouhamed moo koy ñaanal gudd fan mu doon màgg ba doon mag bu am ñam ci barke Seydina Mouhamed di sant ñëpp di sant waa kër suñu aafiya gëpp comprendre ñëpp maa ngi leen di bëggee Henri maa ngi koy sant bu baax doom day soq ñëpp raamata bu soq waaw maa ngi sant ñëpp képp ko nga xam ne day bëggee Boysil daal maa ngi lay sant bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf nii lañ koy defee chaque jour li may wax chaque jour rek Wassare xamul mbër mu mag xamul mbër mu ndaw. nekkal ci làmb ak doon daanaan foo mënti nekk dinañ la fekk jël la ah, wane la bu baax a baax maa ngi nuyu ab Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax yaay maa ngi lay nuyu ñoom ñoo ngi ca Parcelles ah. fu saa bu baaxee ñu ngi jox ma parfum ah maa ngi leen di bu baax a baax famille Ndiobène bi maa ngi leen di siyaar di leen bégg bu baax a baax a baax a baax yéen ñëpp du ma bàyyi kenn ndax su ma limee damay juum maam Diarra Kébé ak Naaboy yaay jiili la fu reer jotee mu woo ma ne ma ñëwal maam Dia dañ may sonal mais sant naa leen bu baax a baax maa leen gërëm aw ma seen fay benn yoon aw ma seen fay benn yoon. xam moo ko sant moom mooy damay di gën. sëñ Mbaye. waaw sëñ Mbaye doomu Fatou Mbaye caare nekk ca ginnaaw laay champion bu mag ma koy ñaanal jàmm di ko bëggee ak ay raxam ak ñëpp ñoom Fatma Mbaye ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal Sid Naar parce que dafa sori woon ci ñun di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal asafurlah kii euh, yàlla xaare ko àjjana yokk ay leeram ci barke Seydina Mohamed jaa jëf. di leen wax nag bu leen fàtte di abonné di leen bës kolos bu rouge bi wasaare làmb lépp lu xew ci làmb lu ne rek dañ leen koy àndil Adama kontaan naa ci yow jaajëf.